moom li may seede mooy déjà professionnalisme bu nekk ci moom. Euh, da ngay xëy suba teel ñëw nga xool ko du nekk en forme nga ne ko Pape lu xew mu ne la sama lii day metti te pourtant du feeñ ci télé bi mu man dafa may impressionné à chaque fois. à chaque fois da ah, ñëw boo ko ah, xoolee. <laughs> amee loos des mu ñëw baat bi du neex des fois yaram bi du neex nga xam ne ne kii tey ji yeewam neexul mais à chaque fois ci télé bi nit mënu ko sentir c'est extraordinaire man de sincèrement maa ngi sa ginnaaw te bu ma màggee yàlla naa. yàlla na xar ku loos